nuyul ma bokk yi te waxal ma leen ni bu dul woon ngant ku nekk dama lay fekk fa nga toog saafoonteeg yow nuyu la ziyaara la bañ daj ma door a toog su toog waaye bi ko ngant waralee it maa ngi leen di yëgal ne ku ne ci yéen maa ngi koy jox sama loxol xol fi ma toog ma roy ko ci tey li ñu defe kilifa yow ma mag walla yow ma ca kanam yaay kilifa ah naam kilifa nga waaye am ngay kilifa ñii garab gi lamb tey ñëpp ka maam qaadi mouhamadou basin jay radiallahu anhu moo leen meñ kon kay bu ma dee as ci taxaw fee daje kilifa yu mel ne yéen muy góor muy jigéen yéen ñëpp wàccuwaayu kilifa laa leen wàcce ndax duma def lu lu leen ump du ma def lu leen um te bala maa def dara ngeen yëg ko mbir mi ñu dajale ñu ngi sant lépp lu faqe ko ci bay Birayim Ndiaye Xaadim Mor Ba Mouhamadou Ba bay Cheikh Ndiaye Xaadim Mouhamadou Basir baay maam Demba Njaay xadim Mouhamadou Basine baay Mouhamadou Sëtu xadim Mouhamadou Basine bu ma len di lim ñu fanaan bay Ibrahim Njaay motul tudd ca wetu maam borom Touba radiyallahu anhu ak bay Cheikh serigne ndjay gene sama mag ju bax ja wutu ko serigne aliou ndjay sama mag ju bax ja wutu ko kero ba mam demba ndjay nelawé ci tiwawon bañuy waxtaan ba serigne abdou waxtaan ba nopi tala ndjay mi def nema job waxal mbolo sama bokki tiwawon yi ñep ne kër gi ñu nekk tay serigne abdou kenn na ay borom kër gañu ni muy aliou ñu dalal ko ci kër moussa ñang kaala ngi nii toog ak lu bay maam Demba jaboote dañ ni nag alfadlu lil afdali laa lil mutaqaddimi wala lil mutaaxiri ñu ne firi mu ne warasu xad yabdoo amaamal wobli wal laaj ak tànn ndom ba ngëneel wala ngëneel ci boppam ma nga ca kay yàlla def rek gëm amul ndaw amul xale xaalis jogoon na ci ay dooma bi sët waaye ci bu bii sëriñ yàlla njaay mu baax ma xalaat bi jur lii ci ñim jëkk yar gan gent ci seen xel bu dul përëm jéem it ku ko def moom yow a caabi gi wuutu ko man mii ci mag sax yéex naa cee bokk yéex naa cee bokk mooy maa ngi nii gumm fa may gumm samay tànk baaxatul dama màggat waaye ñoom bu laxasu laxasu waaye ah, laale kuñ bokkal mbir mi muy ak ñi ko fi yebal ci nun waaye lu ne nit def dana ko def nit ci ko ba mu def jëf ju baax waxuma laa def ko fam ko war def njaboot gi fi nekk nag am na lu ma neex ci ñoom benn qualité rekk boo xam ne lu ci ñëwati su dul woon noonu danaa ko bale mooy ñu ci bokk ñëpp ñëpp ñëpp ngay góor ngay jigéen ku ci ne xam nga yaay kan nit ku baax ngay xam mooy kan nit du réere boppam bu réere boppam dootu sa def dara te seet na ne ko ma ci tassel wala ma dem fa nga nek wala nga fekk suma suma ma ak yow yëpp ci yow ni xam nga yaay kan way ni du nek mbandari ba askan mo mbok ku ko bëgg a jaar ci moom te nekul ci kenn ci yéen man day mag yi ma fi mag taxul ma ne maa nga ca kanam déedéet su ma fi magee it maa ngi ci seeni loxo fu ngeen ma wéyloo rek ma wéy di kontaan ci ñëpp jëfandikoo nag mbirum sharia sharia dañu ne bu dëkk bi nekkee nii jàkk ji nekk nii ku gën a sore jàkk ji yaa ëpp tuyaabo ndax yaay ëpp jéego Jolof sori na yàlla njaaya nga salaatoo ca fajar ca ca maama yu maari ca Tiwaawoon ñoo Mariam mu gonte bi ca Ndakaaru ñii jóge fii ñii jóge fii ñëpp ñii jóge te mbayeen tes ni sori waaye xam ñooy kan xam li am lu leen ko may moo waral coono yi ak tàngaay waaye coono day boo ci séenoo njëriñ lu ko lu lu ko ëpp war ko mën a muñ ngërëm bi royaat ci ñooñu jóge fu ne ba ñëw tey ci daara jii sëriñ Mor Absa Ndiaye baayam yéen njaboot yëpp ngeen teew fi mbir mi ba ko faddilu ñoom laxasaayoo ba tey alxaaji Mamour Ndiaye ci mu mujj mujj mujj jamonoom la ko fekk taxu ko wér waaye ku mujj boote rek laxasu nga taxaw ay tànkam ku mu jur la ñi mu jur nag ci maanan ak ñi mu jur ay sën ñi mu jural boppam ak ñi ñu ko jural ñépp la xasaay li ko dalee ci Alaaji Aliou Njaay di denc ndey Safi Njaay ñu naan ko Safi Jolof da ngeen a daje xamante waale am na ñuy dégg Baye Amadou Sëtu dafa teel a dem ma nga cëg armée li kër gay ci ndigalu Mame Alhaji Malick moom mel ñu Abdou Aziz ñii ci sama wet ana Abdou ma nga nee toog muy doomi Serigne Amane Ndiaye mi ngi naan dégg ca ca tëngeej borom alxuraan du neex joxoon ma léppam te mooy sama kilifa njabootu sëy man njaay a ngi njabootu ma maam Demba sëti yeeg ñi ngi fii seen yiital taala njaay ñu tudde ko bis